beaucoup Euh, jërëjëf ñu ngi koy kontaane bu baax di ko jaajëfal Binta Diaye merci beaucoup ci diwaanu Italie la nekk di ñu fi euh, ñu lay jaajëfal bu baax di la gërëm di la sant ñu fas yéene rek wéy ak ci waxtaan yi waxtaan yi nag certainement boo xam ne sëñ Saliou Guèye moo euh, na ci nag ay mbóot ne daal toll ci 1000 agents fii ak ñaar fukki weer daal lañ ne recruté te ñoo ñëpp fóota la ñu bu baax loolu moom xam naa ne <laughs> day na waar leneen liit mooy salu bi dem di diggante Gorée ak Dakar nee nañ salu la boo xam ne du bu bees dañu ko jënd rek peinture ko noonu càpp cappal ko ba mu naaj ñu teg ci ay nit euh, loolu nag xam naa ne ñaaja la waaye lu nekk mënoon na ci mën a xaj euh, leneen lii ñu ngi wax que ne euh, du loole rek waaye jàppal na it ak 4 x yoo xam ne daal dana ko faral di ko jënd di ko jox jege ñaareelu DG beeg yu ni mel mu doon daal ay mbir yu doy waar yoo xam ne journal boobu jot na ko daal di xamle merci beaucoup à Dédé Nassi Nassito Mante jërëjëf merci beaucoup maa ngi koy nuyu bu baax di ko gërëm di ko sant salaamaaleykum maaleykum ñu ngi ziar baax kilifa gi da nga def. waaw ça va alhamdulilah. alhamdulilah bien merci noo tudd ak fooy wootee. Euh, Jibi Faye woote Kaolack. ah naka Kaolack. yaakaar naa. <laughs> am na port kay. ah port xorom na demi port de. ah bi la kana. ah Kuloof bi waaw ay batoŋ yi fii di wàcce fii di wàcce di kii di chargé xorom di dem. Ah, waaw gis naa ko booy génn Pointe Noire noonu. waaw côté port noir waaw gis naa ko de bisimilah yow bi nga déggee scandale bi tey port lii yor yor wax euh, ça t'inspire quoi suñu waxantee rek ay kaña lañ yoroon rek eh. ay kaña yu yor ay kaña yu yor gis gerte ah. moom lañ yoroon rek eh. naa moo suñu am président bu ñuy bu Sénégal nekkee Sénégal ba léegi amaguñu président hmm. gis nga lii nii waaw waaw lii lii vraiment suñu waxantee dëgg su soo nekkee góor tey jii nii nii nii ñu jiiñ sa papa lii da war a xaru waa dégg na yàlla lii dafa ñaaw sa famille dootoo nekk foofu daara yow ay milliards yi ngay dégg nii góor góor góor moo ëpp milliard gore moo ëpp milliard téeméeri junni yoon lii dafa ñaaw torop torop torop ndeysaan nga jàpp port bi mel ni port bi soo fa dugg sax mënoo xam foofu dara soo duggee port nga xam ne port waxuma la business mag ay market man moom ñoo fa ne mm-hmm. port amul du business de business sax xaw naa tane business xam nga ne dangay jënd di jaay di def nii di dem ñee ay maquette pañ ay tejkatu dil kese ñoo nekk port. Hmm. port de port dafa mel ni port port ga boo dawul port sax mënoo xam port. port de hmm. lu ne port kenn mënu koo wax. Hmm. lii dafa ñaaw torop jàpp ay faux ay fo facturation di def loo xamante ne mel ni xaalis bi sa papa moo ko moom xaalis bi xaalisu Sénégal la. nit ñi ñoo war a respecté nii ñii respecté di waxuma la mel ne bari Macky Sall sax dañuy dañu leen a war a audit mel ne bari yi laa la wax waxatuma la ay ministère mel ne bari Macky Sall yi sax ay milliardaire lan waxatuma la ay ministre ñii nii saa waay xaalis fu ñu ko jëlee milliard nag milliard du caaxaan nag gana waaw du caaxaan de. <laughs> milliard du caaxaan de ñu mel ni milliards yi booy dégg milliard milliards yi ci télé yi ak ci rajo yi da nga yaakaar ne milliard la. Hmm. te yow mën ngaa liggéey ba weer bi dee du am deux cent mille te di nga liggéeyal liggéey boo yaakaar ne yow li nga liggéey daanaka ëpp na un million waxatuma la leen li ngay liggéey loo xamante ne mat na six millions ci weer bi di fayee ko ay ay cent mille ak deux cent mille xoolal loolu nu mu ñaawee. demal ci pompier rek pompier ak yooyu mel ak garde dafa ñaaw non Sénégal lu fi ne kenn mënu koo wax. billaay wala ñii dañoo yaakaar ne ñoo moom ñii deux mille deux deux mille dix neuf deux mille deux mille vingt deux vingt vingt vingt trois deux mille vingt ba deux mille vingt trois da da nga da kii soo xoolee gars yi bu ñuy wax da ngaa yaa yaakaar ne yàlla moo wàcc Sénégal ñoom mosuñu yaakaar ni dina leen dal yow xoolal nit ku jël saak ne tey leen cinquante millions yi lu Antoine def euh, ci télé direct yow ngay jël saak ne cinquante millions ngi ne ngeen jàppale la nag la nag kenn xamul <laughs> loolu loolu loolu xoolal nu mu ñaawee cinquante millions cinquante millions yu muy joxe est-ce que moo ko moom ah lu nekkoon fii kenn mënu koo wax lii nii lii lépp lañ war a lijjante mais ne mbarum Macky Sall yi dañu leen a war a lijjante lii teguñ ko fenn jàpp suñu alal jàpp suñu cent franc suñu deux cent ñu ñu lijjante ay cent franc ay deux cent di fay impôt di fay lépp ñu jël suñu milliard di yàq yàq boo xamante ne mel ni ay kaña mel ni ay golo ci tool non lii dafa ñaaw torop lépp lañ war a lijjante amul lu ñu war a bàyyi ci réew mi benn par benn waxuma la ministre ku dem ku dem ci kaw Espagne itam dañ laa war a tege mandat dalo international indiwaat la Sénégal amul ku war a génn ci ñoom seen mene bari sax nañ toog fii lijan ñu lijante leen ba pare du doog a dem. jërëjëf merci Macky Sall Macky Sall ci boppam warut warut a dem Macky Sall moo waru Macky Sall lu nekk fii nii moo ko war a leeral daanaka moom bokk na ci ñu war a leeral lii Macky warul dem fenn mu ñu jaagat ya dem nekk nekk Espagne ci jaagat ya kenn xamul lu muy def foofu. yow lu gën a bon mooy nekk sa réew liggéey liggéey boo douze ans mënoo fee am mënoo ko sewaat leneen fii ngay dem ci dëkku allié de bi loolu mooy ñàkk a gëm sa bopp ñun président africain yi gëmuñu suñu bopp jërëjëf africain yi ñoo gëmul seen bopp. lii dafa ñaaw torop na. jërëjëf merci en tout cas. bu baax a baax. merci ok dinañ jërëjëf ñu koy ñu ngi koy jaajëfal lu baax en tout cas merci beaucoup Seydi Kaba maa ngi leen nuyu ah, moom la nekk ne bu baax Mounas Man également Fatou jërëjëf euh, na bu ñu fi toogoon dix ans di wax it euh, mbiri du jeex en tout cas c' est tellement euh, compliqué Moustapha Sey ngi lay nuyu bu baax di la di la ziar en tout cas c' est c' aleykum salaam. ñu ngi ziar kilifa gi. waaw ñu ngi lay dellu ziar. bon man ma wolof ne pas tellement clair la. waaw fan ngay wootee bon je ko euh, euh, jusqu'à Kédougou. ah Kédougou. oui. comment ça se passe là-bas. ça va ça se passe bien alhamdulilah. alhamdulilah qu'en pensez-vous ce qui se passe au niveau du port de Dakar des recrutements euh, clientèle ou comme ça. Eh, monsieur. Oui. Ça fait, ça fait une heure de temps je, je pour vous rejoindre. Oh. Vraiment, il faut que le Sénégal nous écoute bien. Uh que je veux dire. Tu tout le monde est, fâché comme ça. Oui. Mais moi, je demande à la population de se calmer. Oui. Donner aux nouvelles autorités de, de, de la fonction. Et puis de, de les laisser un peu de temps. Mais s'ils ne jugent pas les gens là, s'ils ne, ne donnent l'argent du peuple, hmm. wallahi personne n'est content parce qu'on les a on les a on les a pouvoir pour ça. Hmm. Quand le système la passe on revient dans l'autre système. Mmh. Si on laisse comme ça effacer comme ça. Hmm. Vraiment nous sommes pas contents. Hmm. Mais moi je crois aux nouvelles autorités. Vraiment je suis très content d'eux. mais la, donc vraiment qu'on a donc tu es pour des comptes toi. ah. donc vous êtes pour la reddition des comptes. oui mais bien sûr. Okay. Mais il faut qu'il faut qu'on règle, il faut qu'on donne l'argent du peuple, c'est pas pour eux. Hmm. C'est pas pour moi, c'est pour tout le monde. Si on injecte dans dans dans l'argent du contrat, vraiment ça peut recruter des jeunes, ça peut faire des financements des femmes. Vraiment, je suis pour ça. Ça, moi, il faut pas qu'ils négligent ça. les gens les, le peuple vont leur lâcher. Parce qu'ils sont élus pour ça. On sait que les, les, la population veut, il faut qu'ils fassent ça. Il faut, il la population. S'ils kon il faut qu'il coûte les, les la population. jërëjëf est-ce que tu as compris voilà vraiment ça on je, je m'insiste sur ça. merci ils n'ont qu'à l'argent du Sénégal. merci beaucoup. c'est pas c'est pas une question de euh, sur, sur aux sorcières non non. on ah oui. pas qu'on le mette des prisons non mais on n'a qu'à amener l'argent. merci beaucoup. voilà. jërëjëf merci et puis nu ñu waa Kédougou jërëjëf merci. Euh, ñu ngi koy jaajëfal lu ah. baax merci merci ça fait plaisir ñu ngi koy jaajëfal lu baax en tout cas merci Diaw Abdou ñu ngi koy jaajëfal lu baax euh, Moustapha Sey également merci beaucoup Basirou waaw ñu ngi jégalu nag euh, WhatsApp bi doxul ñu ngi ñu bu baax xam na <laughs> temps yi moom waa bitim réew dinañu xaw a mere tuuti ñu ngi leen jaajëfal mais xam naa d'ici semaine bi di jeex incha allah lépp dina dellu siwaat ci dans les meilleurs sentiments bu ko defee ñu wéy di ànd ak yéen mu ngi doon